ka abdukal qadimu sa sala musliman ala musansil khulab ناجاك عبدك الخديم عن جملة الأسواء والعناية وبنجاتي من سؤال وعسار عند مماتنا وفي نسوري في برسق ما خبر كن لها وسرا ومن كروب وخوف نجي الله لا تختبرها بما ليست بقادرة من كان يرسل الساعة من يسعك يا الله محمد المسكي الأخيار خايدنا لجنة الخلد ربك ربنا ستر ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أديب الربا سيد الربا يلا بباخ الحمد لله رب العالمين لأن في الدجال نك ñi fi daje nag di bokk ki nga xam ni moo porte délégation bi bàyyi ko ci wàll wi ñaan si soxna muy sëriñ Abdou Mbacké moom sëriñ Cheikh Khady moom maam Thierno Birahim rakkam ànd ak imaam Alioune Diop moom mëjib ànd ak ñu koy wax Baye maam ñu dippee ko maamam Seydi El Hadji Malick moom Serigne Abdou Karim Sarr moom Sokhna Souci moom Seydi El Hadji Malick avec une forte ak Cheikh jàll mi ngi ci délégation bi ak ñi sëriñ bi àndal fa tubaarakallah ñu bàyyi ko Touba ñëw di ñaan si tey fii soxna di ñaan doomi Amadou Mbéri Syll ñuy wax soxna Ndiaye Syll ñu di ko ñaanal sëriñ Modou Kara Mbacké Noreyni ah gannaaw bu loolu wee sëñ Abdou Mbéri nee na bismillah nee na kër gi sa kër mi ngi fi nag ak ay bokkam yëpp waa jëleer lu suma tuddee turu Yatou mi ngi nii toog nijaayam Alaaji Malick Mbodj mi ngi nii toog mi nii toog sun ni ba tey nijaayam sëriñ tubaarakallaahu ak mbokk yi nekk yëpp délégation bi bàyyikoo nag it ci sëriñ Abdou Fall moom sëriñ Modou Moustapha Fall moom sunu maam Cheikh Adama Fall Lamp mu jël prédélégation bi sëñ Ibrahima Faye porte ci biir loolu daal dara bokk yëpp ngi fi ay xariti mbéri waa Njaañ ñi ngi fi sëriñ Njaañ kër gët ardo yónni na ah, mi ngi nii toog Issa Sow Serigne conseil départemental bi ñi ngi fi responsable yi ñi ngi fi ñoom am di Moustapha Mbodj ñi ngi fi a ah, Papa Sayr Lo te kenn doomi nday fa tabaarakallaahu mbooloo mi daal Serigne Mor mbay Sill commercant mi ngi nii di rakk ci Amadou Bari Sill ak euh, ak suñu mag ñun ñëpp nekk di ma numbe pap ñu gën ko xam ci pap Sill ñu ngi doon bàyyi ko Dakar avec une forte délégation moom itam ñëw di mag Amadou Mbéri bokk ak moom wenn waajur ñu bokkal ñu bokkal ay waajur ñoom ñëpp. mu wax ba pare. waxul xalaatam sa xalaat. waxul xalaatam sa xalaat lay wax. kon lépp. sëñ Abdou Mbacke mii nag xale bu jigéen beeku moom sëñ Abdou Mbacke mii nag nee ak Cheikh Modou Kara defe naa ni ah ba nu bokkee waajur yo ba noppi bokk menn maam it teg ci digganteem ak sëñ Modou Kara man dafa am lu ma ci mën a seede lu bari ndax sëñ Abdou mii du nu ñaar kenn la nu bari na it ñu ñëw ci maye gi dégg ni sëñ Abdu mi ngi ñëw ñu ñëw daje si fi ak moom te bépp fu ñu dégg it noonu lan daan mbir mi mel na ne it yëglewu ko ndax bu ko yëgle woon defe naa ni dina du demee nii ndax man xam naa sëñ Abdu Mbàkke digganteem ak sëñ Modou Kara Mbàkke nag ñoom ñaar dunu ñaar kenn lanu doom ji nga xam ni moom la ko sëñ Abdu sëñ Abdu Kara tuddee muy sëñ Abdu Mbàkke moom sëñ Abdu Kara toll na ne Modou Kara sëñ Modou Kara doom ji mu ko na ne man mii soxna abee ko jur fa tubaarakallaa mu tudde ko ko ba jox ko ko mu yoral ko boppam kon Mbàkke yow loo doxal sëñ Modou Kara war na sëñ Kara la gëm moo wóolu moo la sopp moo la bëggal boppam gannaaw ba bopp bi wéyee ndax maam Cheikh Rafal kat ba ni ko loo bokk dafa ne xalaas dugub suuna kët cox la gën a bokkal waaye soo la jubóol mbokk ko mënoon na fa am ba noppi ci jubóo ko du am waaye bokk ko dafa am ba noppi jubóo bi ñëw rënd sa digganteeg Aliou Diop mën naa cee seede lu bari waaye ci gàtt ci tënk ci gàttal rek ndax sa digganteeg Aliou du ngeen ñaar kenn la kenn ngeen and boo ko seen waajur ya àndee woon ci seen waajur ya bi waajur ya demee it ngeen tas mu jëkkoo dërër yoon yaay sëñ Aliou sëñ Aliou yooyu seet naa am na at moo xam ni gàmm sunu maam mëji mëjib danoo danoo jël gàmm gu tudde ko Serigne Cheikh Kane. gouverneur bi monsieur le gouverneur. waaw sa soppe Mbacké Sarr Mame As Aliou Diop Serigne Aliou waaw ah, monsieur le gouverneur Amar sunu borom moo la ko baaxee monsieur le gouverneur nga yaroo ne yal na la yàlla sunu borom jàppale ba yéen bii la sunu borom yan fi njaambur mission bi la sunu borom koy waaw waaw. sëñ Ibrahima Faye SPA. préfet mooy ñëw ah préfet Koumba waaw monsieur le préfet du département moo ñëw noonu.